yi asalaamaaleykum ñu ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës atta ngi ni ginnaaw bi hélicoptère bu armée de l'air bu Sénégal daanoo ca Missira ca Toubacouta ba juróom-ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan tey ji nag seeni i mbokk ak jegeñaale di leen ñaanal lekk ngiru suuf woyof seen kaw bu dee nag armée de l'air bu Sénégal moom tey ji ca base bu Wakaam ñi nga xamante ni mooy julit ak catholique ñoo fa daje ngir rek ñaanal seen ñett ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo doon dawal boobee Elhadj Mamadou Touré capitaine Emmanuel Sarr ak sergent chef Thiendella Fall daañu ci dellusiwaat ci biir xibaar yi tey jii la àdduna wërngal këpp di jagle rek xeex bi ni xeex feebar bi nga xamante ni daal moom moo laal wàllu roño di rek malade du rein ba tax na kon tey jii fii ci Sénégal ñu koy màggal hémodialysé nag fële ca Ndar moom am ay jafe-jafe ndax ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fanweeri ak ñaar moom ba léegi ñu ngi ciy xaar tey jii nag ñuy xool rek bi nga xamante ne kon waroon nañ ko Sénégal ngir mbiram loolu tax ñu am fi gan euh, di euh, professeur Babacar Diaw nekk chirurgien urologue nekk euh, médecin colonel moo colonel maa ngi lay maa ngi lay fay monsieur a baax nga xamante ni amoon nañ taxawaay bu mat ca FESPACO di festival ba nga xamante kon moom lañ amal fële ca Burkina Faso rawati na ñaari jigéen ñi di Angèle Diaba ak Khadijatou Sow ñoom nag am taxawaay boo xamante daal rafetlu nañ ko nee nañ dana dugal seen loxo rek ba cinéma mën a siggi gi fii ci Sénégal Sadio Mané it euh, sigil Sénégal euh, doomu Sénégal bi nga xamante ni kon moom mooy jongante ca Liverpool démb ca Ligue des champions ba rek ñoom ñoo demoon ca Bayern de Munich daal di leen di duma ñetti bal ci benn moom Sadio Mané mu dugal ñaar ya muy taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rafet rafet la ñu daal di ci ànd ak Modou Fall ci biir xibaar yi su ngeen taaxir loo mbokk ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi ak bi ñu fi dab rek fële ca Ziguinchor benn oto bu sapeur pompier nag moom moo fa rek daal di daanu ba tax na rek kon am ci ñoo xamante ni daal am na ay gaañu gaañu seen am lim toll ci juróom ñoom dañoo demoon rek di fay ak lakk lool daal di leen di dab ca boulevard 54 mètres kon ca Ziguinchor daañu ci dellusiwaat ak suñu naataango di Boubacar Dias bi nga xamante ni kon moom moo ñu yeggee boobu xibaar. ñi ngi tuddoon euh, colonel Mamadou Touré ak tamit euh, capitaine Emmanuel Sarr ak sergent chef Thiène de la Fall ñoom ñett kon ñoom ñoo doon dawal roplaanu militaire bi nga xamante ni kon ab hélicoptère la jóge woon ca Ziguinchor doon ñëw fii ci Ndakaaru yeboon ay civil ba tax na kon juróom-ñett ci ñoom daal ci ñàkk seeni i bakkanta ji nag ca base militaire bu Wakaam amaloon nañ fa ay ñaan ngir rek euh, yàlla yërëm leen ñu ànd ceek soxna Fatou Bintou Konté image yi Amadou Ba am at gannaaw bi hélicoptère bi armée sénégalaise moom di Émile 17 daan woon fee nga xam ne moom moo di Missirah. armée de l'air ñàkkoon ci ay soldaaram ba tax ni tey nag ñu amaloon journée de prière boo xam ne ña ngi woon fee nga xam ne mooy base aérienne de Ouakam mu di wàccee Kamine ak tamit prière ci suñu mbokk chrétien yi la. am nañ ñu bëri ci ñun ñoo xam ne dañoo wàññeeku ci seen liggéey ci lañ jël journée bi tey jagle leen ko. ñaanal leen yàlla mais particulièrement ñi nga xam ne dañu faatu woon ci accident bi amoon daaw ci hélicoptère bi fële ci Missira wàcce kaamil ak suñu euh, mbokku jullit yi def mees ak suñu mbokku chrétiens yi loolu yëpp day wone ne armée de l'air yëpp aviateur yëpp euh, dañoo boole tey seen xol ñaanal ñi nga xam ne dañoo wàññeeku. mu di journée boo xam ne ci simplicité ak sobriété lañ ko def journée de prière boobee nag nekk na journée boo xam ne dafay sargalit ñii nga xam ne ñoom ñooy soldats armée de l'air yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan. signe de reconnaissance la euh, ndaxte bu ñu xoolee ñi wàññeeku particulièrement seen liggéey euh, ak aussi euh, ñi wàññeeku ci crash hélicoptère bi ñu ràññeeku woon lañ ci seen liggéey. ñu xarañ lañ woon également ci seeni i diine euh, dañ leen ràññe woon ci loolu moo tax euh, signe de reconnaissance la comme ni ñu ko waxee ñu jagleel leen ko tey. ci wàllum enquête gi nag ki nga xam ni moom mooy colonel Boucar seen moom bugg cee wax nee na bu sañoon daal bés bi ñu jagleel ko rek ñi nga xam ne ñoom ñooy di seen waay làkku yi de. tey moom suñu xol nekkul ci waxu affaire enquête euh, lépp daal dañ ko jagleel pour ñaanal ñi wàññeeku. Euh, ni ma ko waxee ci njëlbeen du rek pour ñi nga xam ne dañoo gaañu woon ci accident bi mais euh, ñëpp ñi wàññeeku armée de l'air bu ñu fàttaliku hélicoptère amee sénégalis bi dafa jigoon fee nga xam ne moom moo di Ziguinchor mission sociale la fa def ji woon juróom-ñetti nit ñàkk ci seen bakkan ak fukk ak juróom-ñaar ay rescapé jotoon nañ leen ci nemmeeku. Fatou Bintou Konté ni nga ko waxee noonu la kon bis ni ki tey la woon ci atum euh, daaw ba tax na kon ñu daal di ñëwaat rek ci xew-xew mu nekkoon kon lu tiis enquête bi nekk ba léegi ñu ngi kaar ku ne xam na ni kon section recherche bu gendarmerie leen ko jébbaloon wante ba léegi daal dara ruusagu ci di sabrera fan ak ñeent ci weeru mars 2018 fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2019 ata ngi nii ba hélicoptère bu armée sénégalaise daanoo fële ci Missirah ak léegi appareil bi di ab MI set mu ngi yeboon ñaar fukki passager bàyyee ko woon Ziguinchor dëgmal Dakar bilan bi nag nee juróom ñetti nit faatu nañ ci mu am fukki nit ak ñett yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu metti hélico bi nag nekkoon ci ab mission service social yóbbu woon ab néew fële si Casamance bi ñu dellu si nag la daanu daanoo fële nga xam ne mooy zone u Missiraba yi bokk na nag ci ñu njëkk secourir euh, euh, blessés yi nga xam ne ñoom ñooy pêcheurs yi ak villageois yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fële sa Missiraba ba ko gi yégee nag kii di chef de l'état ak armée bi taxawal nañu ab commission l'enquête pour saytu ana lan waral accident boobee jamono jooju sax moo am ab communiqué bu l'armée bu génn wax ne jamono jooju sax moo am ab communiqué bu l'armée bi génne di xamal ne que MI-17 boobu dafa am ay problème ci wàllu moteur te sax ba ñu defee maintenance bi ak léegi yàggul noonu ginnaaw loolu secouriste yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Missira président de la République décoré na leen ba ku nekk ci 500 000 ci commission de l'enquête bi nga xam ne moom la ñu taxawaloon ngir saytu ana lan moo waral accident boobu ñoo ngi xaar résultat yi ba tey. jërëjëf Dissa Pereira wàllu wér-gu-yaram maa ngi leen ko doon wax sànq tey jii kon la àdduna wërngal këpp jagleel rek bis bi nga xamante ni kon moom lañ jagleel wàllu roño ñu koy wax wàllu rein am na ci ñoo xamante nag dañ ci am ay jafe-jafe ñu leen di wax insuffisance rénale ca Ndar it prise en charge ba yenn saa mu indi ay jafe-jafe maanaam paj ndax boo xoolee ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett fanweeri ak ñaar moom ba léegi ñi ngi xaar ngir ñu xool ne say def ba jublu ci seeni mbir ñu ànd ci ak Ousseynou Diop ak bi machine yi ay hémodialysés ñoo fi tëdd lu toll ci fukk ak juróom ci seen i lim ñoo nag seen feebar bi lee lu metti la jamono ji fanweer ak ñaar ñoo fi nekk ci hôpital régional bu Ndar juróom fukk juróom benn di xaarandi ngir ñu mën leen a faj. ne yi bari nañ fi trop ndax actuellement ñu ngi am presque ay 32 malades ñi nga xam ne ñu ngi dialysé liste d'attente bi am nañ 56 ñi nga xam ne ñu ngi si liste bi te 56 yooyu am na ñoo xam ne ñu ngi Dakar di fay. soo seetee ñiy def euh, dialyse ñëpp 75 pour cent yi. ay diabétique lañu donc taux bi réy na Saint-Louis donc saint dañu war déplacé wu en masse ñëw euh, hôpital de Saint-Louis pour ñu dépister leen parce que journée du rein bi objectif bi mu mooy faire connaître la maladie. jafe-jafe yi hémodialysé yi nekk ci diwaan Ndar géej nag bare na ba ci njëkk bokk na ci agent yi néew ba ñu néew ci fukk ak juróom ci ay machines yoo fa nekk ñetti agent donc ñoo fa ne ak benn médecin. jafe-jafe bu njëkk bu ñu am mooy personnel ndax actuellement ñun mën naa wax ne trois agents rek ñoo fi nekk ak suñu bi si 15 machines yi nga xam ne ñoom ñooy fonctionner kon loolu mooy premier problème bu ñu am si hémodialyse. ñoom hémodialysé yi nag seen i kàddu mooy askan wi nañu dem xooli seen i yaram ndaxte gis nañ ni feebar bi bu ñu xaaree ba mu dal leen wér moom dina doon loo xamante ni day jafe. bu dafa lëmbale àddina bi su seetee au Sénégal 800000 cas ñoo fi am yi nga xam ni ay feebaru rein la. soo ko xamul doo ko mën faj feebar bi nga xam ni suy ñëw ci yow doo ko yëg dafay jékki terrassé la tëral la rey la ci tubaab ñoo ngi ko tuddee le tueur silencieux. ci ndar nag malade yi ñoom la ñu wax mooy nañ leen gën a yokkal liggéey bi nga xamante ni moo am ci hôpital régional bu ndar ndaxte file fanweer ak ñaar dong la ñu jël gum en charge juróom-benn fukk ak juróom-benn toog di xaar te ñu ne ni dem ba ndakaaru di fa defee dialyse yeneen i fare la ndaxte bis bu ne lu mu tuuti tuuti fukki junne ak ñett di ko fay. boole si yeneen dépense muy jàngoro juy doy waar dindi lorange fii ci Sénégal incha allah ci biir xibaar yi daañu ci ànd ak benn néphrologue di professeur Farika nekk fële kon ci hôpital Aristide daan teg mu ñëwaat rek ci li ko waral beneen naataangoom fii di médecin colonel euh, professeur Babacar Diaw kon nekk rek chirurgien urologue moo colonel ñu ngi lay nuyu. Euh, monsieur Dia maa ngi lay fay. Mhm. yéen yéen a yëngatu ci wàllu opération weeg yu ni mel ñu bëggoon ñëwaat rek ci li nga xamante ni am na saafara ngir feebar yi nga xamante ni mooy feebaru roño ban taxawaay ngeen ci taxaw. gaaw ngir indil euh, rek soulagement ñii di malade effectivement mais dama bëggoon balaa may commencer nga may ma ma mastaw suñu mbokku frère d'armes yi euh, ñàkkoon seen bakkan ci mission bu ñu doon exécuté. Mm-hmm. pour la nation sénégalaise je compatis. Et je pour que le Tout-Puissant les accueille au sein de son paradis éternel. Et je prie en même temps pour tout toutes les personnes décédées au cours de ce crash. amiin amiin bëggoon na ñëw nag ci bisab tay bi muy euh, journée mondiale du rein. ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy souffrir ci maladie boobu bari trop wax na ko sànq huit cent cinquante mille muy lu takku daanaka jege ne un million ma bëggoon xam yéen taxawaay bi ngeen di taxaw ngir xeex jàngoro ji. waaw xam nga maladie feebaru roño moom dafa doon lu comme ni ko góor gi waxee léegi. ñi ko am bëri na solution bi ñu am actuellement fii ci réew mi mooy jalis dialyse ce n'est qu'une solution d'attente tàmm naa su may jàngalee may wax samay étudiants su ngeen bëggee xam différence entre dialyse ak transplantation bi ngi mel na nga nekk naufragé seen navire bi ngeen nekkoon coulé ngeen langaamu ci ay bouée de sauvetage bouée bi nag mënoo ci langaam lu yàgg jalis c'est une solution transitoire la mm-hmm. yaakaar naa actuellement ñi ngi jëf jéego yu rëy. pour ñu mën a def transplantation. il faut que ñu quand même ñu saluer ministre de la santé bi effectivement bi mu fi ñëwee léegi. jéego yu bëri def na ko tax na ñu avancé te yaakaar naa xanaa 2019 war nañ ci mën a def les premières greffes. fii ci réew mi incha allah daañu ko càmbar baax muy loi bi nga xamante daanaka depuis 2015 ba léegi lañ ko voté woon ci assemblée nationale mm-hmm. ñi ngi ci ligne bi ak professeur Farika moom jalis boobu nga wax ni ñi ngi dimbali malade yu baax fële nga xamante ni moom mooy ci hôpital Aristide Le Dantec professeur ginnaaw bi mu nuy rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média lan moo waral jàngoro ji allo allo professeur oui oui. ñu ngi lay nuyu di rafetlu ànd beeg ñun ñu ngi leen di fay. Mm-hmm. ma nga xamante ni mi ngi lëmbee dëkk bi lan moo koy waral lu koy indi. jërëjëf ñu ngi leen di sant leen gërëm di nuyu euh, sama rakk Khalil Ba professeur Diaw bi nekk ci plateau bi. Mhm. ak ñu ma àndal yëpp. léegi jàngal euh, roño moom li koy indi bari na mais li ci gën a ci Sénégal. Mhm. mooy diabète tension maa hypertension artérielle ak yenn feebar yoo xam ne dañuy wax ne ay affaire glomérule la mooy ay structure ci rein bi la et puis yeneen feebar yu koy faral indi mooy infection. surtout nag ak ay affection urologique mooy ay yi nga xam ne dañuy am dem bu tëju duñu mën a tuur ndox normalement mën na nekk ay mag muy nekk ay prostate wala leneen. Mhm. Euh, kooku di sama xarit nga xam ne ñoom ñoo koy faj mën na nekk xale aussi fekk dañ koy judduwaale ay malformation mhm. et puis beneen xeetu li ko indi aussi te mu bari ci dëkk bi mooy lu ñuy wax automédication garab yi ñuy jël muy garabu wàllu tubaab beeg wàllu wàllu nit ku ñuul yi. Mhm. donc yooyu daal. Euh, ba gën ak àgg fii jigéen ñuy ñuy mat di wasin mhm. ya am doom euh, seen rein yi bloqué mhm. duñ leen faju normalement wala teeluñ ko diagnostiqué malheureusement dañuy dem ba chronique nga xam ne seen rein day yàqu euh, complètement léegi mbiram dialyse bi nag gis na ni Sénégal c'est vrai que ñu ngi fi tabax ay centre hémodialyse ngir rek daal di soulager maladie mais ba léegi terewut saafara am ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci liste d'attente bi di xaar bari na nee say def ba ñoo it ñu mën a jot ci loole nga xamante ne mooy xeetu machine yooyu waaw xam nga ja euh, traitement euh, insuffisance rénale euh, li may wax rek package la maanaam bi su ñëwee am insuffisance rénale da nga koy wax li li fi maanaam am dangay wax ne dialyse am na transplantation am na fu mu nekk nag malheureusement fu ñu tollu dialyse bi am Jaw wax na ko léegi ñu ngi def ay jéem yu mag pour ñu transplanter mhm. dialyse bi nag aussi am na malade yoo xam ne nag ñoom dañuy choisir ou bien def en dialyse ou bien dañuy def en dialyse parce que même su transplantation amee day fekk mënuñ leen transplanter parce que luy tere il faut que nit ñi comprendre nag dañuy dialyser yëpp même ëllëg ak sibur su ñuy def transplantation aussi c'est pas tout le monde qu'on transplanter parce que dafa am ay contre-indication mhm. il faut nga mën ko atteindre ko mhm. maintenant trans dialyse bi nag suñ ko defee convenablement euh, mën nga ji dund avec une qualité de vie ak c'est par rapport à la transplantation mais mën nga ji dund parce que on a ñun ay malgré toutes les conditions am nañu ay maladies yu jël depuis quinze ans vingt ans. Mhm. ñu dem di dem seen soxla di vaquer à leurs occupations parce que peut être yàlla may na leen moyen jënd garab yeeg yooyu maintenant nag ñi nekk ci liste bi c' est un problème. c' est mhm. problème. dëgg la li may faral di wax suñu ubbi woon centre de ak chaque coin de rue aussi suñu deful prévention maanaam fagaru centre yooyu day fees. Mhm. parce que aussi maladie bi dafa bari dafa yaatu. da dafa dafa vraiment law ci Sénégal et puis dafa garaaw et li muy coûter dafa cher donc il faut ñu fago fago bi nag mhm. mooy ku vraiment ku nekk ngay saytu sa yaram ngay saytu sa sa suukar ngay xool sa tension bañ sa bopp di métti rek naan jël garab boobu bi métti naan tàngoor bi rek di naanuma café bi fekk tension nga amee soo amee tension wala et puis sénégalais africain am nañ problème mhm. pour conceptualiser li ñuy wax feebar bu chronique xamuñu dañoo xam feebar aigu paj yi ñu traité nga nga wér nga am euh, grippe ñu traité nga mais ñun xamuñu feebar boo xam ne da nga koo da koo am koo war a yore toute la vie. ñun loolu mooy muy lu doy waar bala ñu laa bàyyi rek euh, professeur muy lu am solo li nga wax nii gis nañ ko sànq fële ca Ndar ki ko wax muy déficit personnel bi c'est vrai que huit cent et quelques mille patients pour combien de néphrologues déjà au Sénégal ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen dafa mel ni kon yéen seen lim bariwul. non attention ñun je ne suis pas fu mu nekk pour ñu wax la exactement nombre d'infirmières chroniques prévalence yi mënuñ la ko wax ay abu ay ay ay estimation rek la ñu mën parce que amul benn enquête nationale bu ñu ma bu ñu def pour dire que tant la maintenant ministère ñu ngi ci sóobu sóobu ak année bi fas nañu yéene def enquête bi mais kenn mënul wax exactement tey le nombre d'incendies exact mhm. def nañ nag ay enquête parcellaire ay Saint-Louis ay Géoul mhm. euh, loolu loolu maintenant sur le plan des ressources humaines par néphrologue yi quand def nañ ci ay jéego parce que euh, en 2003 2004 2005 ñu étions deux trois néphrologues mhm. léegi ñu ngi ci ay trente néphrologues et am ñu ñu formé donc vraiment ñu jéego ci def diplôme il faut que ñu garantir leen suñuy génn fu ñu leen di yóbbu et puis également ñu am lu ñu dundee ba def formation bi maanaam bourse bu ñu mën a dundee ak li ñu fay inscription bi loolu lépp nag euh, bon je sais état bi yokk na bourse bi. Euh, mais il faut que ñu am motivation ñu def néphro. jërëjëf loolu nag vraiment je mmh, ñu koy sant kon di gërëm moom professeur ah. Farika nekk néphrologue di jàngale ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekkit ca hôpital Aristide Le Dantec professeur Babacar Diaw ñu ngi ko doon wax ci mbiram transplantation luy loolu boo ko bëggoon a tekkil ñi nga xamante ni xëy na déggoon ko ci kàllaama nasaraan. waaw transplantation mooy. ñu ku am maanaam benn roño ay roño yoo xam ne doxatul ñu wutal la benn roño defal la ko roño bi nag mën na jóge ci nit kuy dund comme mën na jóge ci nit ku faatu ba pare mais Sénégal li ñu fas yéene def mhm. kenn du jël roño nit ku faatu pour defal ko kenn foofu loi bi autorisé ku ko loi bi ñu voté lu mu autorisé mooy nit ku la jege sa benn parent moo la mën a may. sa mbokk sa mbokk moo la mën a may benn roño voilà. loolu bu ko defee du ko indil gàllankoor. déet xam nga euh, lu ñuy wax naan donneur vivant mooy ki ki nga xam ni kii maye ki nga xam ni moom mi ngi dund kooku dañuy xayma ñaari roñoom yépp xool ban moo ci gën a baax. Mhm. bi ci gën a baax moom nañ koy bàyyeel. te bu bu bu ñu leeree nii bu mayee benn daf ko nar a indil ay gàllankoor du maye dañuy seeti keneen. donc yaakaar naa bu ñu li des ci texte yi bu bu bu ñu ko signé rek bu ñu permettre ñu mën a transplanter. Mhm. ñi bu war a mayee nañu dalal seen xel xam ni euh, médecin yi néphrologue yu mel ne ki ñoom professeur Farika mi doon wax léegi maa ngi koy nuyu sa mhm. sama mag la. bi mhm. nga xam ni ñooy liggéeyandoo ñooñu daañu saytu pour xool. ndax am diw man mën na joxe benn roño wala mun ko. mais est Sénégal am na ay jumtukaay yu leen mën a may ngeen euh, def genre euh, opération yooyu. waaw xam nga euh, def transplantation jafewul. mës ngeen ko expérimenté. parce que ñi ngi def intervention yu gën a jafe greffe rénal te ñun ñëpp ñi mës ñëpp professeur yëpp génn nañu réew mi ñoom ñëpp jàngewuñu fii ba balaa ñu doon def si seen agrégation génn nañu. Mm-hmm. centre yi ñu demoon yëpp def nañ fa. transplantation ba nii nii am na suñuy rakk yi nga xam ni envoyé na leen ñi dem Turquie ñi dem France jàngi transplantation war a ñibbi ci waat li am solo mooy ñu am des infrastructures yu ko mën a permettre actuellement fi ñu toll. Mhm. les ressources humaines nit ci ko war a def am nañ fi équipement bi koy def am na ci yenn hôpitaux yi mais li des mooy locaux yi yi nga xam ni. mooy ay barab. wala ay barab yi xam ni foofu na leen war a ak fi ñu leen war a denc bu ñu leen opéré ba pare. Mhm. parce que nit ki soo ko greffé microbe waru ko jege. parce que pour yaramam nangu roño bi ñu koy indil défense am immunitaire yëpp dañ koy dañuy rey défense yëpp pour comme yaram bi mën a nangu. roñoo bi ñu ko jox te bokkul ci moom. Mhm. moo tax xam nga xam nga danoon nekk moo xamante ne dafa am ay réalité sociale. Mhm. muy wàllu diine ak yu ni mel. est-ce que sensibiliser ngeen ci nit ñi ban préparer leen pour ne foofu lañ jëm. waaw loolu waa ministère la santé ñi ngi ciy dox ak euh, euh, les les guides religieux te yaakaar naa loolu en tout cas islam terewu ko euh, christianisme aussi terewu ko xaw ma nag yeneen diine yi lan nañ ci wax. Mhm. mais ñaari diine yooyu terewuñu nga maye deret pour dimbali nit wala nga maye sa benn organe pour mën a sauver nit bu fekkee li ngay joxe du la lor yow. Mhm. am na benn comité bu ñu fi samp kuréel goo xamante ni moo ci xalaat fan la liggéey toll. Ah, xam nga ñun liñ doon xaar c'est que. Euh, transplantation greffe bi bu ñu ko war a def dañu hôpital bu nekk da ngay indi sa dossier. mais il fallait que ministre bi nommé lu ñuy wax comité national du don et de la transplantation comité boobu mooy saytu dossier hôpitaux yëpp pour xam ban hôpital mooy am accréditation pour am autorisation mën a transplanter mais hôpital bu nekk fi ñu. du n'importe quel hôpital kon moo ko war a def. déedéet comité bi mooy moo naan kii am na accréditation wala kii am ko. Mhm. buy liggéey ci benn programme de transplantation programme boobu ngay soumettre seen CNDT bi et critères yi CNDT di exiger yooyu liggéey nañ ci ba pare. Mhm. ak waa ministère de la santé yàggul il y deux ou trois mois euh, au cours d'un séminaire yaakaar naa critères yooyu rek. Mhm. la CNDT mën a exiger. parce que yooyu experts yi war a liggéey ci transplantation ñoo ko joxe. lu tax c'est vrai nee nga loi bi mooy nit koo xamante ni génn àdduna ñu daal di ko jël te pourtant am na réew yoo xamante moom autorisé ko foofu lan lañ ci ragal ba. xam nga loolu réew yi ñuy ma yi lu ñuy xoolee nit ki xam ne dafa géddu àdduna ñu dem seeti waa këram ni leen est-ce que mënu jël organe am wala ñu wax nit ki nga signé balaa ngay génn àdduna nga ni su ma deewee nangu naa joxe sama organe réew yooyu day fekk nit ki bu amee accident. ñu yóbbu ko ci service de réanimation bu mucc ay nga xam ni machine yépp a nga fa lépp am na fa nga xam ni bu génnee àdduna seen waa kër du ñu mer daan ni praticiens yi kat def nañu lépp lu ñu war a def parce que fi nga koy yóbbu barab bi nga koy yóbbu pour jël ay organam équipement yi fa nekk dafa sophistiqué trop trop te ñun mënuñu nangu sur le plan éthique nit ki di dund amul équipement yooyu mu dee ñu dugal ko ci condition yooyu pour war a jël ay organes. Hmm. kon raison éthique médicale la. voilà il faut que les services de réanimation ñu def leen aux normes nga xam ne bu accidenté ñëwee daa daañu def ci moom lu ñu mën bu ñu ko sauvé bu nekkee en état de mort encéphalique ñu xam ne def nañu lu ñu mën ñu mën a am fitu am am euh, euh, nu ñu waxee seen waa kër yi wan leen kat ni gis ngeen ni lépp lu doon su pexe def nañ ko. mais mënuñu ko sauver fi mu toll est-ce que daa ngeen nangu ñu def lii mais nit mënul mënul di dund nga def ko dans des condition difficiles mu dee nga yóbbu ko benn condition bu mel ni Club met mhm. pour jël ses organes loolu euh, xel nangu ko xel nangu ko bala ñoo tàggoo rek am na beneen laaj xëy na toujours ci sensibilisation bi mooy ñi nga xamante ni pare nañ par exemple pour def lu ni mel xëy na seen mbokk am na insuffisance rénale et cetera mhm. ñoom man maanaam nit ki mën naa fonctionner ak benn rein waaw nit mën na dund benn rein bu nu saytoo ba pare bu nu la jëlalee benn rein yow ak ku ku am ñaari rein yéen a yam presque espérance de vie parce que gis nañ fi nit bataayi nit bu juddu am benn roño dong dund ak moom du am benn jafe-jafe waaw mais nañu dalal seen xel xam ni du ñu jël roño kenn te leeruñu ni bu nu jëlee benn bi nga xam ni mm-hmm. euh, bu nu jëlee benn ci yow Euh, doo am benn jafe-jafe. Mhm. bu ñu leerul duñ ko def. Mhm. muy lu am solo ñu koy sant di ko gërëm kon professeur Babacar Diaw ma fàttali yow médecin colonel nga nekk également fa li nga xamante ni kon moom mooy ci hôpital Dantec nga nekk. hôpital Dantec ak mhm. euh, hôpital militaire de Ouakam. Ah. <laughs> sant di gërëm ci ànd beeg télévision doon indi ay leeral rek nga xamante ni moom lañ jagleel wàllu roño ni moom mooy ci département bu Goudomp foofu nag ay jafe-jafe la askan wi am rawatina rek ci dem beeg dikk bi rawatina mbiram infrastructure ba tax na ko kon ñu doon yëglu district ba it euh, am na ci ñoo xamante daan ba léegi daal ñaari poste de santé yi dañoo bëgg rek ñu indi leen fa loo xamante ni ay jumtukaay la su ko defee askan wi seeni tawat ñu mën koo saafara ñu àndi ci ak Bakary Konte image yi Xaali Jaame département bu Goudomp mu ngi am frontière ak Guinée Bissau mu am ay gox yu bëri yoo xamante ne dañuy enclavé wu loolu ba pare amuñu benn structure sanitaire population yooyu pour jóge seen gox dem feneen dem faju fa lu jafe la ndax yoon yi nu ñuy yàqoo wante tamit ñi ne rawatina ci nawet. jafe-jafe yi ñu am ci district de Goudomp xam nañ ko euh, mooy jafe-jafe accessibilité soins population dañuy am jafe-jafe pour faju ñenn ñi dañoo sori ñenn ñi nawet bu jotee duñu mën a faju ñun nag suñu objectif suñu challenge mooy fexe ànd ak ministère de la santé li nga xam ne moom sas nañu ko mooy fexe améliorer li ñuy wax carte sanitaire mooy maanaam ubbi ay case de santé ubbi ay poste de santé personnel également am nañ ci jafe-jafe parce que tey moom mi ngi nii mooy ICP Banger moom kenn moo fa nekk peut-être am na ay acteurs communautaires mais l'idéal serait que ñu xool ni ñuy def ba affecté ko benn sage-femme également difficulté boobu constaté nañ ko ci yeneen postes yi nga xam ne ñu ngi ci district bi parce que am nañu 18 postes de santé yi nga xam ne ñu ngi ci district bi donc loolu également dinañ ci def ay jéego dinañ def plaidoyer bind ñi nga xam ne war nañ leen bind pour ñu jàppale ñu ci personnel Panière di ne dañu bëgg sage-femme dañu am problème lii d'hospitalisation am nañu problème tamit ci logement infirmière bi donc euh, loolu tamit bu weesoo ñu ñaan gouvernement tamit mu jàppale ci sage-femme bi ñu mën ko am ci lu mu gën a parce que population Bagnères dafa rëy dem na bi vingt quatre villages te ñuy ñaan tamit clôture poste de santé bi. poste de santé bu jaaree ak bu Bagnères léegi lañ leen créé wante dañu manque matériel ay partenaires ñëw jàppale poste de santé bu Bagnères. dañ doon ñaax population yi commencé ko d' abord ci prestataire de service te li ma ci gën a neex mooy ICP bi ci boppam engagé wu na pour euh, faire un bon usage pour faire un bon entretien médecin chef boo aussi engagé na. pour faire le suivi qu'il faut pour que le matériel là soit bien entretenu donc loolu moom ma ci gën a neex te ma dolli ci ma ne leen man tamit dinaa leen jàppale euh, dinaa ci engagé wu pour que en tout cas ñu fexe ba matériel boobu ñu def ko na mu waree. après bannière AMREF di ne dinañu wéyal seeni action ci yeneen structure sanitaire nekk fii ci département bu Goudomp loolu nag pour population yi mun a faju ci nu mu waree. université bu Thiès daal di ubbi rek daara ja ñu koy wax envie de rentrée thème ba nag ñu daal di koy jagleel rek ñi nga xamante ni daal dañoo ëppal ci ni ñuy jëfandikoo téléphone portable te loolu de ay loraange rek la leen mën a jural ci wàllu xel wante tamit nga xamante ne ay neurologue lan seen xam-xam màcc ci wàllu xel di ci artu képp koo xamante daal da ngaa ci ni ngay utiliser téléphone portable Cheikh Anta Diop say la teex étudiants yi nekk ci université bu Thiès élèves yi nekk ci lycée collège yi ak askan wi ñoom ñëpp dikkoon doon fekke rentrée d'amphithéâtre bi doon amal doon waxtaane nag li nga xamante ne jamono yi moom moo lëmbe réew mi ay téléphone portable ni ko élèves yi ak étudiants yi di utiliser mu am njeexital gu rëy bi muy def ci ñoom ci jàppale leen ak ci gàllankoor bokk na ci di ñàkk nelaw bañ yëngal sa yaram di définir ko loo xam dina yàq sa yaram dina yàq ngay war a waaye dina la jural ay jàngoro yoo xam ne buñ ci teeloon jóg wala nga bàyyi si xel dina la aar ñàkk xam mooy waral lu ne nga xam ne liñ ci jëlee dinañ bàyyi xel si fi gone yi jànge muy école yi wala université waxtaan weccuntey xalaat élèves yeeg étudiants yi ku ci nekk joxe sa kàddu kii yi université bu Thiès di Ramatoulaye Diagne Mbengue bëgg ci lool ñuy delloo ngërëm ak njukkal professeur Gallo Diop ñu nangul ñëw fii ba Thiès pour defaral ñu conférence mu wane ni nelaw amee solo ci nit te léegi xale yi nee na xale yi nelawatuñu mag yi nelawatuñu portable yi ak ordinateur yi tax na ba kenn nelawatu nelawatu te nee na na guddi ci la nag yàlla di def ay kéemtaanam di ko def ci yiwu di ko def ci lépp luy dund ci àddina bi professeur wane nag ne vraiment xale yi war nañu fexe organiser wu ba nga xam ni bu nelaw jotee dinañ nelaw bu jàng jotee dinañ jàng bu def sport jotee dinañ ko def auditorium bu université bu Thiès feesoon dell ki élève ki étudiant daanaka xam-xam bu sell lañ leen jox ndongo yi yeewoo fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp bëgg nañu ci wàllu aada ak cosaan ministère bi ko dénk daal di rek sargal ñi nga xamante ni daal ay cinéaste la nekkoon ca FESPACO bu mujj fële ca Burkina Faso am na ci ñaari soxna yoo xamante nag am nañ fa taxawaay bu am solo muy Angèle Diaba ak tamit Ramatoulaye Sow ba tax na kon daal ñu daal di leen di delloo ndugal ñoom soxna yooyu ne di leen dugal seen loxo ci wàllu réalisation su ko defee cinéma gën a mën a dekki fii ci Sénégal Aïssatou Pay Fall moo di Diop weeru mars bi nag ñëpp xam nañ ne jigéen ñi lañ ko jagleel ñii nag dañu dem fespako sargal bu baax Sénégal Angela Sidiaban am poulain de bronze Khadijatou Sow am poulain d'argent beneen i jigéen itam ñu sargal ko teg kë ci boppu fak kenn mënul woon espérer lu gën a parce que c'est le Sénégal qui gagne ñun kese ñoo gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est la femme sénégalaise qui gagne. jigéen yi bëri te jigéen am nañu benn sensibilité boo xamante ne je pense bu ñu leen dimbalee ci cinéma bi dina avancer. ay histoire nag Ben Dioga yi moom mën na ko nettali ndaxte ay scène yu bëri dund na ko mu kontaan nag ci jigéen ñi nga xamante ne ndam rekk lañu ñu indil Sénégal. cette cinématographie qui se rajeunit qui se féminise et c'est tant dafa mel na sax cinéma sénégalais day gën di rajeunir ba pare nag jigéen ñi tamit taxaw si am seen pàcc ma kontaan ci loolu boo leen seetloo sax cinéma bi dafa nekk si benn dynamique boo xamante ne mi ngi continuer di wéy parce que man mi nga xamante ne yàgg naa ci liggéey bi gis naa ne ndaw ñi ñu ngi ciy def lu am solo te it seen liggéey ku ko gis yaa ngi koy apprécier. Ici que chaque fois il y tout de même euh, des jeunes qui, qui montent. nguur gi nag di wéy di am yaakaar ci cinéma sénégalais. Le président de la République a donné des instructions fermes. jiitu réewum Sénégal nag moom joxe na ay instruction yu dëgër ngir rek FOPICA bi mën gën a mën a am place am ci participation bi nga xamante ne ñu koy def ci FESPACO bi. kon nag faw techniciens yi xoolaat réfléchir bu baax ci anam yiñ ko nar a defee te nag si sama xalaat bu gàtt nag faw ñu def nag comme euh, waa CEDEAO waa OIF ak ñeneen nag ñeneen ak Union européenne di def ñu itam ñu def noonu am ay prix FOPICA. de du FOPICA. projet yi nar a taxaw nag bari loolu. FOPICA bi nag ñu nax ko revaloriser waat ngi rek permettre li nga xamante ne mooy cinéma sénégalais moo wéy nag di gën a jëm kanam wàllu tàggat yaram Sadio Mané sigalite na Sénégal démb nag ca Ligue de champion moom nag ak clubam Liverpool ñoom ñoo demoon ca Allemagne fekk fa rek Bayern de Munich daal leen duma ñetti bal ci benn moom Sadio Mané moom moo dugal ñaari bit yoo xamante ni daal bu njëkk ba moom euh, jekk na lool ba tax na kon daanaka moom la ñuy waxtaane fépp moom nag moom mooy ñaareelu jour bi gën a xarañ ci Afrique euh, moom Sadio Mané di am taxawaay boo xamante ne saa su nekk kon daf koy am solo ba tax na kon Liverpool mujj a qualifié ca quart de finale yi siwaat ci jaloore jooju ak Modou Fall. boo xalaatul jamono ji ñu ngi ko koy jox gannaaw seen match Liverpool Bayern ci phase retour huitième de finale Ligue des champion journaliste anglais yi ñii ne Magic ñii ne impérial ñii ne tey jii Sadio Mané moo fi ne juddoo ca Bambali moom nag moo jox ndam lu rëy Liverpool ngir qualification quart de finale yi nga xamante ni Sadio ci seen jàkkaarloog Bayern de Munich dafa dugal ñaari ba technique bu bett ñu bëri Sadio duut góolu bu mag bi di góolu allemand Manuel Neuer ngir dugal nag bi bu njëkk bu Liverpool ci ñaar fukki minute ak juróom-benn laataa nag ci juróom-ñetti fukk ñeent yi muy dugal ñaareelu biwam ci mbëkk bu rëy paas boo xamante ni Momo Salah moo ko paas ñu daan nag ki nga xamante ni moo di Bayern de Munich. juddu ci atum 1992 ci weeru avril fukki fan ca Sédhiou numéro 10 bu Liverpool toll ci 1 mètre 75 moom nag jël na départ gu baax kon ngir Ligue des champions saison 2018 2019 bi mu daal di ci wane xar kanam gu am solo ñett bi la dugal a guum ci Ligue des champions fukki bi ak juróom-benn euh, ci Premier League Sadio jamono ji nag mooy joueur bu gën a xarañ wala sax mu bokk ci joueur yu gën a xarañ ca Angleterre. doon nag meilleur joueur Liverpool weer wi ñu génn parcours am fi mu jaar tax na ba club yu mag yëpp di ko soxla moom mi nga xam te ni mooy deuxième joueur euh, bu Afrique ci ginnaaw Momo Salah Real Madrid euh, boole ko ci priorité mi Sadio Mané dibéer gi mu war a jongante 31e journée ca Premier League seen équipe di dajeek Fulham faaw nag ñu gagné équipe boobee ngir romb City jëlaat li nga xamante ni moo di bopp championnat bi. jërëjëf Modou Fall gàcce nga la kon moom Sadio Mané mbokk yi bala ñoo tàggoo rek li gën a fës ci yenn kay yi ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndombal tànk député fu ma fekk fa la may bay daanaka loolee la maître Madické Niang wax waa PDS ndax l'observateur mi ngi ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne avocat bi di maître Madické Niang delloo na waa parti démocratique Sénégal seen député bañ betteel ak Gaye ba moo waral ba bi président groupe parlementaire liberté et démocratie Cheikh Bara Dolly Mbacké binde ab lettre président assemblée nationale di Moustapha Niasse doon sàkku ci moom mu génnee Madické ci i député Madické Niang da leen ko yombalal bind na ab démission yónnee ko Moustapha Niasse lettre bi mu bind président assemblée nationale journal moom maître Madické Niang lettre bi mi ngi ci l'observateur l'observateur tegal ñu ci ne la ko Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides waxoon xëy na bokk na ci li tax démissionné gi yomb ko moom maître Madické Niang ne Serigne bi da ko ne woon cofeel gi nga am ci Serigne Touba moo ëpp doole bépp ndombal tànk boo yóotu les nañu moo tax it maître Madické Niang yombalal na ko gaañ delloo na waa parti démocratique Sénégal seen poste député dafa yónnee fàttali keroog ba maître Madické Niang njëkkee bëgg a ak ni ko Abdoulaye Wade doon ñaanee ngir mu bañ ko def bi ñu fi defee élection présidentielle yi ba ñu ne Macky Sall gagné na ko ku jëg politique gékk taxawaay bi ñu ci amee woon te mu bettoon ñu bari enquête dina kay nee nañu kenn ci ñoom candidat yi fara ci opposition bi mu di Idrissa Seck mi ngi leeral li taxoon ñu amee boobi la taxawaay Idrissa Seck ne dañoo gisoon ne lu bari jaru booloo gi ñu nekke ngir xeex li fi nekk Sud Quotidien xamal ñu ne waxam joojee jépp moom Idrissa Seck démb la ko wax bi nga xamee ne leader yi woon ci coalition Idy ñoo ngi doon conférence de presse journal bi nañu xamuma ku demul tour de waaye Idrissa Seck moom ma ngay tuur ak Macky Sall lu rëy sàkku na ñu génnee Khalifa Sall ci kaso bi libéré ko ci luñ du laxas dara maanaam libération sans condition libéré it militangam yi ñu teg l le quotidien bind ci xëtamu njëkk le second tour de Idy nee na dañu gu bëgg a fuqarti bëgg-bëgg askan wi mu di volonté populaire ba woon di vox populi nañu Idrissa Seck mi ngi wéy di laaj ba léegi victoire bi mu ne da koo am bu nuppi ñu confisqué ko teg ci loxo xañ ko ko wax na it li tax ba bi ñu leen ñàkk ngeen élection yi kenn déggu ñu yëngu baa ñu yëngal réew mi quotidien nañu nañu taskatu xabaar yi wax ba sottal waxuñu dara ci wote Macky bi dañu koo ñooru dañu koo ignoré ku mu ignoré moom Idrissa Seck ba mu gis boppam moo ki mbokkam direct info nañu Kébé ndax colonel Kébé moom Idrissa Seck la doon politique am lante ne fi ak yoon Idrissa Seck dëggul tànkam ca gendarmerie noonee mu ko deewee muy colonel Kébé di ay mbokkam kenn ci ñoom rafetlu ko journal bi nañu àndub Idrissa Seck ak doon ab sëy la ñu ne tas na nañu tase yi ci l'observateur yéenekaay bi ne nañu handicapé yi ci commune bu Pikine waxatuñu dara ndax maire ba Isaaxa Diop moo leen baaxee ndimbal lu toll ci ñaar fukki millions ak juróom ngir ñu mën a demal seen bopp Sadio Mané ci boppam xëy na saf-sàpp ci yéenekaay ñu xëyandool national impérial Sadio Mané loolee la journal bi bind yéenekaay bi nañu kenn moom Sadio Mané ndaxub équipe am di Liverpool démb ba muy football ak Bayern de Munich ci huitième de finale retour yu Ligue des champions yi football katu Sénégal di Sadio Mané toj na max ba ab équipe am di Liverpool moo gagné Bayern de Munich ñetti bal ci benn gone gi Mané moo dugal ñaari bi record yéenekaay nañu réewum Allemagne Sadio maane mooy buur ba ndax toj na ko rajax jërëjëf euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen it euh, jërë ngeen jëf ci ànd bekk télévision Futurs Médias fii la ñu am ci xibaar yi ñu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm.